mbokk yi xarit yi ñu seetaan à travers Dakar Buzz TV c'est un plaisir saa su ne di jàkkaarloo ak yéen dalati leen ak jàmm euh, ci seen émission tase ni ma koy defee saa su ne dinaa seet si benn ndaanaan amal ak moom waxtaan tey nag euh, ni ngeen ko gisee ci image yi ki ma seet si day ndaanaan kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal di Ouzin Keita moom la seet si weeru koor bi ñëw ziar ko xool nan lay dundee koor bi Ouzin maa ngi lay nuyu. Euh, asalaama asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna bi di wax nit caabi féete ginnaaw yàlla suñu borom. sut euh, sutura leen euh, génneen fi nekk di ñaanal Sénégal yan fi jàmm yàgg si bak seen am sang-sang di ñaanal sam papa sama yaay ñu euh, ñu suuf ñu suuf ñu suuf nekk seen kaw yal na yàlla suñu borom ñu xëppee àll ñu gën a kawe kawe di ñaanal suñu papa papa Thione di wax yal na koy suuf am si kawam si bak seen am di ko ñaanal fi mu jëm ni yan ak yan ak gën a fi mu jógee si bakk Seydina Mohamed di ñaanal ñëpp di wax Sénégal yan fa jàmm yàgg di ñaanal tam waa Sénégal di ñaanal waa àdduna bi di wax Ouzin Keita ñu mu tooñ tooñu lépp ñoo xam ne Ouzin tooñ na leen ñu leen ak si weer bu bi si mu weer bi nga xam ne masala mooy wéer yërmande maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di la nuyu yéen nga xam ne waa Kër masala ba ngeen ñëw ba tey neewal noo masala macha allah Ouzin ñoom tamit ñu lay baalu àq ah, parce que àq dafa sew ni ñu koy waxee rek tey nag ñu seet si la sa kër bopp ñu nekk ci weer bu sell ni ñu ko waxee weeru koor la ñu wax ñu fekk si la euh, ñëw euh, bi nga ndogoo ba pare tamit nee nga ma Rose foog nga xaar ba ma julli ba pare ñu doog a def interview bi Ouzin nuy dundee koor gi. man moom damay woor ndax benn weer yàggul benn weer yàggul kon boog ñaan yàlla sum borom woor ko sellal ko. ñaan yàlla suñu borom baal na suñu bàkkaar ndax fii ñëpp euh, fii ku nekk da ngay juum ndax doomu aadama da ngay juum nit nit kese la nit mën ngaa juum mën ngaa def bàkkaar boo xam yëgoo ko mën ngaa def bàkkaar bu yëng ko mu ngi ñaan yàlla euh, yal na yàlla suñu borom baal suñu bàkkaar te te xëy na lu lu baax ñu koy def euh, ndax doomu aadama nit mën ngaa nekk nit sax def lu baax def lu baax sax jur nga def benn heure boo xam ne bàkkaar la nga dëgg benn melentaan wala nga rey loo xam ne du day dox kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla suñu borom baal suñu bàkkaar wéer koo gi nag dama kaa damaa yàgg woor ba may xale ba tey damay damay damay damay damay damay woor weer euh, woor bi daan dama kaa nàmp ba may xale ba tey damaa yàgg am jom si woor. macha allah Ouzin ñu gëj la gis lool ci toile sénégalaise bi lan moo war a ngaraar fa ni xam nga tam àdduna euh, nit euh, lu yomb baaxul lu jum dong moo yomb ndax lu jum nañ nañ koy jaay dama Ouzin Keita dama xaw a dama raar. maa ngi dem nat wàll fu may dem ak xale fu ñu dem bokkuñu ndax tey ji ku bëgg akala da nga ñeme kaane gëm sa bopp dëgg sa bopp ma nekk si ay projet yoo xam ne maa ngi si ku si man ni tey dama see ay téléfilm yoo xam ne moo ngi daw 2STV maa ngi see téléfilm yu yéeme maa ngi samay projet maa ngi waaj loo xam ne bu génnee Sénégal kontaan. ci yooyu laay ñëw ngay def euh, benn série bu am solo donc li ci kër gi. Euh, nga ànd ci ki nga xamante ni mooy Pawlish Mbaye gis nañ ci ñoom ko gis nañ ci ñoom Tafa yeneen daana euh, sa intégration ci série bi nu mu demee. man série bi euh, Bijou Ngoné moom woo na ma Ouzin Keita dañ bëgg def benn téléfilm téléfilm ñoo ko noonu def man ak Pawlish kese ñoo ko noonu def dem ba si biir Bijou na ma ñoom Tafa say affaire yooyu man ne ban loolu ñoom loolu bëkk néeg lañ lay jox ma jël bëkk néeg bi Pawlish Mbaye nekk maanaam géwal géwal kii bi Pawlish Mbaye nekk géwal kii bi. géwél monsieur le maire di di di di di ko bàkk man ma jugee dëkk ba jugee kaw ga ma ànd sëñ bi nekk nekk nekk bëgg nekk affaire bi si ay surprise mu war a ñëwaat moo noo ñëwaat commencement bi Ouzin Keita nañ kaa gis si benn daal si benn yem loo xam nekkul nekkul Ouzin Keita daal ba digg bi nat après nag surprise lu naan euh, buur bi day tourné après buur bi day tourné nat ma jëlaat sama sama place. ci rôle daal boobu laay ñëw est-ce que loolu yomb na ci yow Ouzin jox ko rôle boo xam dafa war a dal te te tekk tekkaaral te yow ku la xam-xam ne ku la ko timbax rek nga rimbax ko ko. waaw kaay ma xam ne yenn yenn saa yi day mhm. a daal akama mun a ku ma xamul damay daal du ma xam ni asalaamaaleykum dugg dugg si yow ñëpp ba ñu bëri ne damaa ñàkk kees ñàkk ma kees de c'est que Sénégal yi dafa am ñoo xam ne dañoo foo li li li ñuy wax li nekk si ñoom bokkul. ni dalay woo téléphone toggal mbooloo dafa may libre dangay wax ni téléphone sa gis sa bopp gis sa bopp si réseaux sociaux yi ñii nenoo foo ni day ñëw dama laa bëgg toog yàq la bu ñu gisee cote la fóon la ju jooy la loolu baaxul man du ma tirise moo tax boo ñëwee dama dama day jàng xool ban genre nit nga ma def nànk-nànk bu ma fekkee sama ni ñoo xam ne yàlla bon na maa ñoom dinaa përie écarté bërëngu seen kaw d'accord Ouzin lan ngay waajal fan si or ni téléfilm yi ngay def bu ñu xoolee ci carrière musique bi nag gis naa bu yàggul présenté nga li nga xamante ni mooy sa orchestre est-ce que mën nañ xaar Ouzin daal di dugg rek soobu ci ay soirée live. soirée live mën naa ko ndax dama osé si live ndax kuy toog écran di yuuxu kon kooku bu live ay dëkk bu yëngu macha allah sama cat sama catu morom euh, euh, lu axulaa naan euh, allahuma baari allahu laa ilaaha illallaah man Ouzin Keita mu dugg see. ñoo xam ne dugg si naa ndax li ma def dama kaa gëm dama kaa bëgg. fan yi nag eh, mu am benn coow boo xamante ni ci toile sénégalaise bi ku nekk yey na ci yàbbi ci eh, te wax jooju defe naa yow mi tamit eh, daaw daloon na la nga tooñoon fi rek ki nga xamante ni mooy suñu mama mm, Fatou be jamono bii nag Pawlish mbay def benn sortie gis nañ réaction ki nga xamante ni mooy mama Fatou Lawbe yow ban gis-gis nga am ci loolu ndax yow yow yow daaw ñamoon nga. daaw ñamoon naa. waaw faatuloo bee de sama yaay moo tax bu nekkoon sama morom kon dëkk bu yëngu wante tam xam nga àdduna nit euh, ni da nga koy xool pour dara ndax bu nekkoon sa yaay doo ko def faatuloo ba tam moo war comprendre xam ne Prof doomam la ndax euh, Prof Mbaye moom xam nga dafa mën a ay ay Prof Mbaye ay yëfam daal Prof ay ay yëfam ay yëfam moom ko ko stop doo juboo moom ndax moom ba muy wax lu rek a jàppee mbalaak ak kafa reetaan kon comprendre nga. ba mu dalee man woon naa fekk mu ngi fekk tournage man ko li nga def volcan daf na ko mu mën ma dama doon mbalak mën ma du fàttali def na ko def na def na ko Fallou def ñëpp ne ñoom waxuñu Fallou be di wax man ko da nga koy comprendre maa Fallou be yow sama yaay nga sama xarit nga bakki Seydina Muhammad El Hadj Ndouba may fen bakki Seydina Fallou be Fallou be ma damay daan ay wóyam damay kii ay wóyam damay daanal bakki Seydina Muhammad ay wóy Fallou be démb man damay daanal de problème bi ni nga gis noonu la bëggee Fallou be ñu fu ñu toog nii teg bu ma nekkee suñu temps ba min tamit nii toog te teg son Fatou Laobé c'est que Fatou Laobé moo la xam ne xale yi nañ koy mbalak xale yi nañ xale yi nañ foo nañ mbalak ku comprendre nga man maa ngi ni ma Youssou Ndour sax yu ma tàppaas ko waa ma moromam Youssou Ndour du ma du ma moromam Youssou mënu maa ak wéy parce que wax ko lépp ay wàll kaf ay waay reetaan Fatou Laobé man ba ma ba ma woowee indi ma histoire damaa waxum si Jokalante na ko sama yaa ngi sama xaay damay damay foo ba ba mu yóbboon ma Paris ma yóbboon ma Paris obi daaw lépp ma bàyyi lépp lépp ma bàyyi mu seer yóbboon ma Paris de man man ma ragal ma Paris xam ma ragal ma Paris la. est-ce que du da nga ragal police nga baal ko. non non ragal ragal ma Paris de ma ragal ma Paris ragal ma tribunal na Fatou Laobé Mampalous bokkul man dama si jëm ba jeex wante sama moom laa koy defar du ma ko defar ay maire te Fatou Laobé suñu moom yaay la Fatou Laobé doom doomam bu jigéen kese muy fecc moom mag ndey Fatou sama xayli dama bëgg te yàlla tax kon Fatou Laobé na arrêté te xam ne day day foo Palombe na na na na arrêté wax duma duma duma bëgg sori na taram ku ma àkk ji. nee na wax bi lu ci sori na ko àkk la euh, li mu wax rafet na. du du Palombe àkk si ma de ma. non non maman Fatou euh, suñu yaay la ndeysaan suñu yaay la donc. moom na ndeysaan euh, obi daaw. pour naan kaan obi daaw weeru koo daaw obi daaw la weeru ko daaw dama faraba comme ëbbi dapa Pablo Mbaye weeru koor ba Kolda gi di ma woo man la faatu la fekk sama benn dëkkandoo eh, eh, xanaa ma ma wax benn secret xanaa ma faatu la ah. bëgg tundale bi dugg si <laughs> boobu a ngi ci jafe-jafe ah, dugg si moom si àdduna man dinaa la baalu àq de waaye yënga si àdduna boo ne <laughs> bi mu ñëwee seet si la nag. ba ñu si loolu loolu asi bi lay doon ma ko waxee da ma ko waxee fada bu subaa nga ne xëy def vidéo de xëy def ma wax ma njaañaa njaay. sama waaw nañ bàyyi sax man taluma bàyyi nañ bàyyi ak de waaw moom ma àkk sama yaay la man fada bay wax dëgg yàlla baax na Pawlish Mbaye àddina mu solo Pawlish Mbaye dem barak ku comprendre Pawlish Mbaye Pawlish Mbaye man mi man mi sëñ mën a bàyyi naa ko àddina àlaxira xam nga Pawlish Mbaye maam moom dëgg sama rakk la bakki Seydina sëñ na bàyyi naa Pawlish bakki Seydina Mohamed papa ko comprendre ko fa ne pas lu mu jël temps ba di sonal di daw day sonal di daw fatt ma sonal ma yom fu ma yàlla yom dama ko comprendre man fu mu toll dama ma bébé laa ko jàppee ndax yof yof xale lay def xam nga Pawlish Mbaye sonal na la ba nga toxu kër ga nga dëkkoon waaw yi nga si àdduna fii dootu ko defeti fii maa moom ñëw nanga nangu ay fansam nangu ay nitam loolu mooy vencé bu mag bi mais yow tamit dawoo coow de parce que da nga ñëw dëkk biir koñu Pawlish Mbaye yow Pawlish Mbaye tax eh, borom kër gi génnee la nga ñëw dëkk biir koñam encore ginnaaw koñ ginnaaw koñ balaa laa dëkk ah. du boobu kër gi de problème moo tax agence ba génn ma ndax moon san ay xeer solo di tëgg ay tama naraw muy tëgg ay bool ba mu jóg say si kër gi yuuxu wuy yaay yooyu wuy sama nday léegi seen dëkkuwaay fii nu mu demee es ce que ça va waaw fii moom macha allah alax ma baari macha allah koñ bëgg nañ ma de euh, waa koñ macha am naa fi baax ñi bëgg nañ ma nawloo may na la jàmm pa ma may jaam doon ko rafetee ma may jaam man këram laa jëm na fu mu doon damaa takku ba ma ne takku naa boo fu mu ne bunt kër ñaari bunt kër la pambe fan lay jaar waaw fan lay jaar bu bu fi jaaree ñu mbaar ko am naa xaj bu rëy ma nga ma teg fi dafa am ñemewul xaj. moo tax nga jënd xaj. waaw bu bu xaj bi ñëwee moom ko ne ko ki ki ma sa <laughs> alors ñoo ko déggandoo ma Pawlish Mbaye nii laa dañuy clashante duñu juboo <laughs> duñu ko donc tout le temps euh, nii lay demee mais tey dama fekk ay gan sa kër Ouzin nag mu mel nii Ouzin dafa dafa bëgg ambiance dafa bëgg nit euh, seetlu naa saay su may ñëw sa kër di tourner dama fay fekk tout le temps mbooloo nekk fa euh, gars yi nekk fa tey gis naa fi sax ay ndaanaan du ñàkk dinaa ci siif kenn léegi nag dañ koo gëj a gis ndaanaan nga fekk sama nit démb nan mm-hmm. ki ki toog ne man ni Pape Malick Wade moom laa njëkk woy sama woy bërëng bëri ko kii euh, tey mag la Pama Wade borom Grand Yoff Seydou Xari Kanja moom sama nit sama xarit la ndax tey ji dama naan tey ji orof Ndiaye ne bu neex da ko mu sa fekkee damaa jàppale sama bii jàpp sama biti sama yaa bëgg ko lool muy sama xarit muy sama xarit sama mag kee toog muy fës muy muy euh, la xam nga asloobe ki yaa magam la ñu bokk ndeye mu yàgg kaa jàppale kii dem naa asloobe tey bu njëkk ba Euh, bu bàyyi ay coiffeur ngénte ay coiffeur ceet ginnaaw la ji moo ko waral moo ko daan toog naan ko kii yaa nekk ni dafa comme say morom day teg gërëfaa day teg ñu ñu koy conseil mu nekk ku baax ku gën fës ngi nii macha allah dama naan tey jii mën na ko manager asloobe moo ko daan teg si kot asloobe kenn daaw ko ñu wax dëgg ñoo ko doon wax dëgg magam ji jàppale ko bii jàppale ko biti macha allah kii mooy fës macha allah kii mooy euh, mooy jeg mooy jeg rond mooy borom jumbang borom firaale moo ko génnee nee naa si àdduna ba mu sinoo benn xale sinabul nee naa ko si àdduna ba mu gëm boppam benn xale gëm boppam macha allah muy aminte muy aminte la tudd dëkk euh, Cambérène 2 ko ñu xaarim kase ki dama naan moom moo dara ñëpp ban moo dara xaarim kase ban moo dara bàyyi Modou Kane euh, ban macha allah mu nekk ku baax ku gëm boppam ku dëgg ku ma ànd ku foo du ma ànd ñu ma àndal ñun ñëpp a bëgg du koo xam ne da ngay ànd man ànd dëmb wala ànd man wala wala ànd man ànd wala wala nga ànd man ànd hypocrite. Ouzin lan lan nga lan nga lan nga jàppee colère parce que tout le temps dañuy gis say nitu démb ba tey ñoom ngay àndal. xam nga xam laa jàppee colère nga nga bëgg ma te yàlla tax ma defe lu yoon nga woo ma si pet na ma Ouzin Keita ñu waxtaanee ko nànk li nga def baaxul bëgguma koo xam ne dama def erreur nga toog si digg mbooloo woo wax ma ko man j'aime pas loolu daf mel ne danga may xas bëgg naa ma bañ bañ ku ma conseillé de waaw boo may conseillé man man man yow yàlla suñu boobu ma conseillé digg nit loolu mooy xas nit ki dama Ouzin Keita damaa baax sama xol daan ma ma am problème àdduna wante dama dama dama dama damaa xaw a naqar deret xam naa xam naa li ma dër moo tax dama naqar de dama dama dama bañ ko ko ko ku ma yab bu ma la waxee dara bu ëllëgee fàtte naa xaw ma dem ti jàpp xam laa du jàpp wax ju ñaaw laa du jàpp dafa wax bal ba wax la bu xasee génn génn na kon boog àdduna dëggu la ak sincère a wax dëgg te bañ a wax te nekk bañ a nekk dëmm mën xam laa jàppee dëmm muy ku yaakaar doomu aadama bu bu bu ñëwee kot la bu ñëwee si yow bu génnee yàq la bu nekk si yow kii ah ñii yëpp sama nit dama ne mab gëte yàlla tax. alors Mouhamed ni nga ko gisee nii maa ngi nii ak Amina Dieg bi jimbang xam nga Sénégal euh, olof Ndiaye dañuy naan wiñ ne nex nagam nit baax na nañ laajte ndegam ay mbokkam ñoo ko wax moom mi nag dafay xaritu Ouzin Keita yàggax moom lool tey yàlla dogal ma ñëw fekk ko fi donc il faut ma dégg ko sama micro ndax kii dafa yëngal toile sénégalaise bi yëngal euh, snap bi yëngal tiktok bi donc euh, ñu bàyyi ko mu nuyoog internet yi ñuy seetaan Amina maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di kontaan te bu baax ñu ñëw daje fii kër Ouzin tubarkalla macha allah di nuyu waa Dakar Buzz ñëpp ak képp ku toog di ñu seetaan. Mhm. kontaan naa mun nga si ñawaat tuuti. waaw sama digganteeg Ouzin boo boo ma fekkee fii sax nga xam ne Ouzin dafa bokk ci man mu nekk lu yàgg loo xamante ne nii du tay te yàlla mooy boole mu boole ñu muy lu yàgg booba lii yëpp amut yàlla boole waan ñu fi tey may def ay tàkkusaan ci koor gi daal di ñëw ak si ko dajee gi yéen waa Dakar Buzz xam nga loolu du du lu ndaw lu rëy la te Ouzin nekk tamit nit ku baax nit ku oyof macha allah nii mu mel nii di ambiance du lool du moom nit ku baax la nit ku dal la ba pare nit ku julli te la ko fekk muy julli nit ku baax macha allah li ñuy nawee doomu aadama mu ngi ci moom macha allah. xam naa xale bu ndeyam gërëm nag ak baayam ak famiyam man loolu lay àndee macha allah Amina tey comme yàlla dafa dogal ñu tase fi nag mais man xam ma dama mën ruube il faut ma siif nànk laaj la li Sénégalais di wax lan moo la jëlee 2STV lan moo ma jëlee 2STV te comme da nga ñëw pour interview Ousin du ma mën a guddal mbir mi mais li ma jëlee 2STV il faut dañuy jël temps ñu waxtaan ci lu baree bari. waaw il faut nga seesi ma waaye tamit sant yàlla parce que tamit jóge naa 2S yoon la boo xamante ne nii terewul maa ngi ci sama yoon ba léegi maa ngi ànd ak maa ngi leen di seeti ñu may saajal ku mel ni Baye Modou kan Masata ak Masayer Ndaak Xaadim Kasa Biram nga xamante ni moom la Amina def ci yow léegi Ousin nag dama am benn seetlu Ousin yow la mooy sa problème ak presse en ligne bi temps yi daa mel ni danga ñuy daw. temps yi daw ma xam nga temps yi damaa changé euh, ni may liggéeyee tey jii maye maye maye ba yàgg de di nga maye ba may musiba nga ngeen baal ma si kàttan moo tax temps yi euh, ku ma soxla si interview da nga may fay ndax man damay liggéey amatuma yaay amatuma papa te sama mbokk ginnaaw yàlla yéen itam moo mën a. Ouzin da ngay fay ko interview li waaw damay fay ko interview liggéey yéen moom dama leen jox la seen si koor si interview bi bu baal ak nit ñi. li ay dóor du ma si dëkk ay dóor dama leen ko defal xam nga ma ma defal ko ndax euh, ku la bëgg moo moo la sonal. dañuy dag maa bëgg te yàlla da man ku ma bëgg la a ma sonal fu mu toll ne damaa toll jamono boo xam ne damaa war a liggéey ala bi temps yi doxatul dara doxatul hmm. kon leer na Ouzin nee na léegi boo bëggee interview da ngeen di jaay rek service commercial xam naa alors euh, ci weeru koor lañ nekk Ouzin mënuma la euh, tàggatoo ak yow xam naa internet tamit ñi ngi xaar loolu ci yow tey ban saar nga ñuy may. bàyyi bàyyi ma may leen leer euh, xuloos bi bi naasi. Euh, bisimilah rahmaani rahim xuloosu euh, bi naas maliki naasi ilaay naasi ministre wasaas naasi alaji si wasi sufi su naasi mina jënt wa naasi maa ngi ñaana Sénégal yan fi yàgg si bakk seen naa Mohamed di ñaanal kilifa diine ak kilifa aada di ñaanal samay fans ak samay di ñaanal tam samay géer ma wax ku si mel ni sama nijaay Ousmane Noé Dieng ba mu ko wax nangaan euh, ki si man ni tey jii ñu bëri ni may laaj ne Ouzin Keita xanaa nga xool Abdoulaye Diop Khass man leen kooku si du ma du ma sa xool moom si àdduna na kooku sama sama papa sama xarit la Eh, ki mus a eh, ki ñëw eh, ay weer weer mu la fay sa kër kooku kooku tey kooku tey amoo faram kooku tey man man aw ma fayam Abdoulaye Diop xaalis moo leen di sama kër di ma fay appartement chaque fin de mois ma fay 200000 di ma jox xaalis na ma dundal nga def sa sa sa bopp yëkkati teena may ma ma ñëwaat tam sa Abdoulaye borom kees yëkkati teena may ma bokk tam papi ku su ma ne papi Ndiaye borom Dubaay boobu États-Unis kooku dama naan conseil Abdoulaye Wade la. kooku moom li ko may oto di ma defar teraanga di ko xaalis bi waxtaan di ma ko may ñooñu am ma seen fay ak sama ñi nga xam ne yàlla moom borom ku si mel ni Farouz kooku sama yaay ji borom États-Unis borom Dubaay borom daal màkk di nuyu ñëpp di wax kulim juum bu ma bëri ay génn bëri ñu ñu baax di kontaan si tey ñu fi ñëw euh, ndog si ma macha allah Pa Mag Wade mbokk yaay Sadou Ndiaye di nuyu jeg bi Amina macha allah dama naan teg sax man ku mu lay na Ouzin Keita yomb Amina da euh, Amina Fos ne may daanal. c'est un problème c'est un problème ne may daanal xam nga comme Ouzin kon tey jii ku gën a neex Ouzin Keita xam nga xam nga yomb Ouzin Keita ku mën a toog muy wax nga ngay yuuxu di di di përie dafa koy war téléphone waaye xatat ba xaaj bi booba ko da ko am naa jéeg lu xew te bu naa mag ma damay nelaw ku peel <laughs> macha allah am xam xam nga sama sama sama sama cousin hélas kii ma hélas euh, ma hélas euh, ma hélas euh, sama xayit sama nit sama macha sama sama ku ma bëgg tey yàlla macha allah tey dama naan moom moo doon seetee si si si Ndéla Maajo Diouf la nekkoon di seet di seet si Ndéla waa Ndéla fayu ko de. ah yaay tooñ sama xarit nga sama yaa nga dama daa mere fay hélas xaay sam Ndéla arrêtel balaa ma def la vidéo maa ko wax. ay man Ouzin Keita dégg ma andi problème nii la mën demee xam ngeen Ouzin Ouzin gis nga. Pawlish day tooñ mais Ouzin dafa jéggati encore. man damaa sànni dama dama dama wax fay na maa ko wax. ñoo ko gisandoo moom la seet si tey dalaloon ko ci émission tase ah, amoon mbégte loolu seet si ko muy nit ku baax nit ku oyof wax dëgg fa yàlla ni mu ko waxee rek lu ma ko ñaan rek mu nangul ma ko des fois sax du du du xaj mais billaay du ma nangu du ma bañal dara lépp lu ma bëgg ci moom rek ah, mu nangul ma ko di remercier Ouzin bu baax moom laa dalaloon tey ci seen biir émission tase gis ngeen ko day ruube day ruube Ouzin il est pas sérieux du tout di remercier El Hadj El Hadj Keita nga xamante ni moom tamit ah, bokk na si ñi dalal tey di leen remercier bu baax yéen ñi ñu di leen jox dig daje très bientôt incha allah ci yeneen numéro Ouzin kontaan naa. mu nekkoon si Ndera état bi nekkoon si Ndera waxal loolu bëgg a dagg.